muy Paul bu daaru ak ki nga xamante ni moom mooy Mamor ji dem waaw Thiam bul noté de Père Thiam bu leen bind jàpp leen si bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind eh, eh, eh, yéen ñaar boo yéen boo leen amee fit yéen ñaar ñëpp ku ci nekk boo ñemee sa bopp sa morom kaa leen fii ay tapet ngeen booy waaye booy da ngeen di sóob kaa leen fii waaye yéen kaa leen fii ngeen ba wax ci foofu sëñ bi taxaw ci kanamu caméra yi nii di nellu rek Paul dama ko xiif namu ko barki Serigne Bamba dama ko mu kii dama ko jox cër bu baax mbër la moom ëpp ay victoire moom ëpp ay combat mais man sama combat nii lay demee man du ma seral ay metti su ma naree damay tëdd sama gaale du mu teew Paul yow yaag Mamor du mu ni Mamor lamb la rek adversaire la comme yeneen adversaire yi kaay leen te lamb dafa am lu baaxoo am lu mu waaw ay xale combat bi warut a a yomb du yomb signature du yomb ci biir géew bi man maa la wax xam nga ko xam naa ko bu xam si moom xam naa ne champion la la mais mu ngi bëre kullu ndaanaan xam nga ko xam nga ko ndaanaan la man du ma bëre ku ñuy wax xam nañ ko xamuñu ko kii champion la dama ko jox cër su ma ko daanee daf may yóbbu si toog wala gàmmu gay moo tax ma respecté loolu champion la moo dama jël ko sa combat day gàtt xeex nan lay demee si moom la dépendre bu nekkee comme combat bu mujj mi ni mu ko bëree damay takk lu ñu machine yi barke Serigne Touba man su ma bëggul nga daan ma doo ma daan mais bu taxawee une minute duñ ko am barke Alxuraanu Karim. kon neex na ma mor kon du ma neex na man du ma la teggil tànk ginnaaw man man maa ko signé fii tànk ginnaaw du ma ko teggil boo xeexee ma dóor la nga wàcc ma daan man doo ma tardel loolu dangaa puus ba sonn demoo man puusuma ma tardel Amadou kenn puusuma ma man mo ah, da ngaa gore rek ma jox la yeneen tur may wax ay at waay waaw. Mamor Mbaye. Mamor Mbaye la tudd. waaw nuyoo xam nga pression duggee dañuy nuyoo nuyoo. seede moom mooy loolu. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen di. sa jàkkaarloo musul mel nii man dama la xàmmewul tey. waaw combat bee ko laaj bis bee ko laaj gone yi dafa am luñ foog te loolu amul dama leen di wan ne loolu amul loolu ñuy jaay noonu dafay dafay buuj barki Seera Faal ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi bi di sant suñu ñaari waajur di santaat suñu ñaari waajur di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suma yaay fee mu tëdd yàlla suma papa dund ba fekkee suma njariñ di nuyu waa Daara Cubu di nuyu waa Kër Massar bi may tàggatee commune Jaxaay bi Sangalkam Tivaouane Peulh Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Tëngéej bàyyi ma fenn daal ba ci koñam moom Fass Mbaw maa ngi kii bu bëggee suba suba suba suba suba lu ma indi loo xam ne loolu lay sol wala loolu lay takk moom. barke Serigne Touba Mbacke koñam fanaan fanaan naa fa 15 jours si hôtel yi laay fanaan moom xam na fi may fanaan fekk na moom ma toog si kaw moto di ka xaar dama ko doon indil problème moom mu ñëwee dafa jënd glace. Paul bu daaru fekk naa ko koñam mu gaare moto dem si diini ma toog di ka xaar. ba mu ñëwee dafa jënd galaas barki Seydou vidéo yi ñëw sama kóol naa ko envoyé gars yi ñu dugal Seydou. tontu ko Modou Modou dëgg dafa neex yàlla xam nga ma la wax kii maa ngi moom fa lañ daje Lagros lañ daje xam ne secteur pôle moom wala sama boy di ko fekk di ko am nu ne moom dara xam nga laa ko soxla géew ba laa ko soxlaa géew ba na ñëw ak jàmm ma jàpp ko daan ko dem man loolu laa nii borom sëy borom daaru français nga da ngaa tegle ay yére barki sëñ Touba dama lay daan un million dama koy dugal si sama papa day théâtre